Sunugal 24 point ak jàmm ci xibaar yi ci Sunugal 24 léegi léegi li gën a fës bokk na ci li gën a fës euh, ci xibaar yi assemblée nationale daal dina ñuy jàllale loi bi jëm nag euh, ci jox euh, Macky Sall doole bi war ngir mu mën a wëyal couvre-feu bi nga xam ne. amal nañ ko fii ci Sénégal ba tey euh, ci mbirub euh, coronavirus euh, la ñuy wax ak fukk ak juróomi yi nga xam ne daal nañ koy testé positif niki tey juróom daal di wér ñibbi seen kër daan ci dikkaat ci ni mu gën a yaatoo ci biir xibaar yi. ki nga xam ne nag moom la ñu testé woon positif ca caserne Samba Diéry Diallo daal dinay wàll ki nga xam ne moom mooy soxnaam niki tey jii nii waaye nag doomam bi nga xam ne nag moom moo am ñaari at ñu ngay xaarandi ay euh, résultats am lu toll nag euh, ci juróom benn fukk ak euh, juróom benn ci ay cas bokk na ci ñoom fukk ak ñeent yi nga xam ne ay haut risque lañu daldi nañ leen identifier ca Richard Toll daan ci dikkaat ci ni mu gën a yaatoo ci biir euh, xibaar yi ba tey euh, ci mbirub euh, coronavirus ñu wax ci Pape Diouf mi nga xam ne daal amoon na feebar bi mu nekk nag ki nga xam ne moom moo njëkk ñàkk bakkanam fii ci Sénégal ci wàllub coronavirus dinañ ko jébbal boromam ñuy xaarandi rek bés bu ñuy jàpp ci bàyyeekoo nag ci njabootam. ngir ñu denc ko ba tey euh, ci mbirub euh, virus googule ak ki nga xam ne euh, moom moo doon mbubboo turu médecin di Amadou Samba moom nag daal dinañ koy jébbal procureur niki tey ji keneen ci complice mi tamit daal dinañ di koy teg loxo coronavirus euh, dana tax nag euh, ñu wàcc ay euh, prison ay prisonniers yu bari ñu ñibbi seen kër lu nu mel nag gannaaw ba ko maître Clédor Ly digle woon njiitu réew mi Macky Sall kejaxaay ab dram bu metti moom moo fa am ndax ay bloco xeer yu bari ak i béton moom moo wadd ci kaw euh, benn xale bu jigéen bu am euh, ñaar fukki at ba mu daal di mujjee ñàkk bakkanam mbokk yi bu ngeen taaxirloo tuuti yaatal ak faram-fàcce gi. Sunugal 24 point net l'information à sa juste valeur. sunugal 24 point. dal leen ak jàmm ci yaatal ak faram-fàccee xibaar yi nañ leen ko junjee woon ca bopp ba assemblée nationale daal nay euh, jàllale euh, loi bi nga xam ne nag moom mooy may njiitu réew mi Macky sàll euh, pouvoir yi war ngir mu mën a wëyal état d'urgence bi nga xam ne daldi woon nañ koy lancé ba fukki fan ak ñaar fii ci Sénégal boobu lépp loi nag jàll na ca pencum ndaw réew ma naam sax am na abandement waaye njiitu réew mi dana am euh, pouvoir yi war ngir mën a wéyal euh, bi lépp état d'urgence bi nga xam ne lancé nañ ko fii di Sénégal euh, ba fi ak ñetti weer boobu lépp loi nag jëm nag ci wàllu xeex li nga xam ne moo di coronavirus bi fii ci Sénégal ba tey euh, des ci wàllub euh, coronavirus bi ministère euh, bi ñu dénk wàllub wér-gu-yaram bi ci ab communiqué bi nga xam ne génnee nañ ko niki tey amaat nañu fukki cas ak juróom yu yees juróomi nit daal nañuy wér ba ñibbi seen kër lilee nag mu nga bàyyeekoo. ca ministère bi ñu dénk wàllub wér-gu-yaram bi cas positif yooyu nag bokk na ci ñoom fukk ak ñeent cas contact ak euh, kenn ki nga xam ne nag euh, moom daf ko daal di indaale lu ni mel nag euh, ministère bi ñu dénk wàllub wér-gu-yaram bi moom moo ko xamle ki nga xam ne nag dañ koo diagnostiqué woon positif mu daal di dawee ca Samba Jiri Diallo daal di nay wàll soxnaam doomam bi nga xam ne nag am na ñaari at ñu ngay xarandi ay euh, résultat mu nekk nag euh, ab euh, immigré ñu testé woon ko positif mu daal di daw ba dañ ko mujjee woon fekk ji këram foofee ca Pikine jëli ko moom nag wàll na ki nga xam ne moom mooy soxnaam ñu ngi ñuy xamal li tamit ne doomam bi am ñaari at ñu ngay xaar résultat am fileek ay waxtu Euh, ba tey euh, ci mbirub euh, coronavirus boobu la ñuy des ak juróom benn fukk ak juróom benn nit yi nga xam ne nag ñoom bokk na ci ñoom fukki nit ak ñeent yi nga xam ne ay haut risque lañu ñu daal di leen identifier fële ca Richard Toll ñu nekk nag ay cas contact yi nga xam ne dañoo jege woon ki nga xam ñi nga xam ne dañ leen testé positif foofee ca Richard Toll lu ni mel nag euh, ki nga xam ne moom la ñu dénk euh, centre régional ba euh, nekk Saint-Louis moom moo ko daal di xamle di Omar Fall moom mile mu ngay xamle nag ñooñee nag daal di nañ leen ràññee ba noppi. jamono ji ñu ngi leen suivre waaye nag ay nit yi nga xam ne seen xel màcc na ci wàllub feebar boobu feebar bi di coronavirus. daal dinañ leen euh, yebal ñu ñëw foofu ca Richard Toll ak euh, roso ngir mën a saytu cas suspect yi nga xam ne daal dinañ leen euh, détecté ñu wax ci leneen ba tey ci mbirub coronavirus bi waaye nag ak Pape Diouf mi nga xam ne génn na àdduna ni ki démb moom nag ci fàttali bokkoon na ci ñaari cas grave yi nga xam ne doon nañu ko tudd Sénégal moom Pape Diouf nekkoon fi nag président club bu Marseille daal dinay euh, mujjee ñàkk euh, bakkanam sunu sukkandikoo nag ci ay euh, xibaar yu ñu jot gannaaw ñi nga xam ne nag doon nañu laam-laamee ci naka la ñuy def ba jébbal ko boromam ndax na mu génne àdduna ak fu virus bi toll sunu sukkandikoo nag ci yilépp xibaar yi nga xam ne bàyyeekoo na ci njabootam ak gouvernement bi danañ ko denc waaye nag euh, du am euh, kenn ki nga xam ne da koy teewe lu dul euh, njabootam waaye itamit dinañu jël matuwaay yi war yi nga xam ne nag kenn du ci mën a loru waaye ba tey kenn jàppagul bés bi nga xam ne moom lañ ko war a jébbal boromam ñuy xaarandi rek njabootam daal di jàpp bés bi nga xam ne gouvernement bi dina leen ko mën a jox ñu mën koo denc ci anam gi mu waree ñu wax euh, ba tey ci ki nga xam ne dafay euh, mbubboo turu médecin di Amadou Samba moom mi nga xam ne nag jotoon na def ay prélèvement ci ay nit ne day saytu ndax am nañu doomu jàngoro ji di coronavirus ba tax na nag moom mile jàppoon nañ ko niki aljuma bi weesu moom Amadou sàmba doon wuyoo turu médecin nag jamono ji tey jii sax danañ ko jébbal procureur waaye nag am na ay plainte yi nga xam ne jot nañ ko teg itamit ci ndoddam gannaaw kuréel gi nga xam ne moom moo ŋànk médecin yi ci Sénégal RTS tamit euh, daal dinay jébbal plaintam ak euh, structure médical bi di IRIS mu mel ni rek euh, mbiram mu ngi gën a doy waar waaye gannaaw moom mi tamit ay nit yi nga xam ne lëkkaloo nañu ak moom ci mbir mi teg nañ leen loxo jot nañoo jàpp benn infirmière tey jii nag jàppaat nañu keneen ki nga xam ne nag ca l'hôpital Dantec la nekk ndax moom mile moom moo jot a def prélèvement yi waaye nag bañ ko laajee Euh, mu ngi xamle ne moom xamul woon ci mbir mi dara xamul woon ne sax ne euh, Samba mi du médecin waaye nag euh, moom moo def li nga xam ne moom mooy test yi ba tax na rek xel njott na wala enquêteurs yi ñu ngay njott ne moom mi moom moo ko lijjantil ba mu mujjee am li nga xam ne moom mooy carte médecin bi nga xam ne moom la doon doxantoo ca bañ ko jàppee sax boobu lépp carte fekk nañ ko ci moom kon nag moom mi le tamit euh, dinañ ko jébbal euh, procureur ba tey euh, ci mbirub coronavirus bi la ñuy wax ak maître Ciré Clédor Ly bi nga xam ne nag doon na woo nguur gi ñu daal di mën a wàcc ay prisonniers. ñu ñibbi seen kër ngir wàññi rek limu ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci kaso yi ne wóorul ak feebar bi di coronavirus lu ni mel nag mu mel ni boo moywul nguur gi dina ko jëfee ndax dina wacc ay euh, prisonniers yu bari ñu daal di dem euh, ñibbi seen euh, kër dañ koy jeexale rek ak drame bi nga xam ne muy lu metti lu am ca jaxaay xale bu jigéen bi nga xam ne nag euh, mu ngi wuyoo ci Oumou Awa Diallo am ñaar fukki at moom nag euh, moom moo ñàkk bakkanam ci anam gu jéggi dayo ndax nag ay xeer ak i béton lañ ko sotti euh, ci kawam gannaaw saignement bu metti bi mu am ca la mujjee ñàkk bakkanam ci saa si lu ni mel nag ca jaxaay la am ci ab euh, dal bi nga xam ne nag ay euh, gone yu góor yi nga xam ne euh, ñoom ñoo nekkoon foofu rek doon jël béton yeeg xeer yi doon ko wëcc doon ko sàndiwaat ci suuf waaye nag bàyyeew ñi xel ñi nga xam ne dañ doon jàll ci noonee rek la umu daal romb rek ñu daal di koy sotti loolee ci kawam ñoom nag jamono ji ñu ngi ci loxol yoon muy baabu ak euh, M Guèye M Sané S Sané ak euh, M Ndiaye euh, ñoom ñi leen nag danañ leen defeere ca parquet lu ñu leen di toppee nag mooy homicide involontaire maanaam faat nit ci loo xam ne tayoo ko mbokk yi mu nekkoon liñ leen indiloon ci xibaar xibaar yi dina dikkaat suba incha allah jaa jëf.